Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko ku ko xam ak ku xam Bassirou Diomaye c'est-à-dire que la moo leen war a mën a boole. politique man je suis en pole position je suis plébiscité ñëpp bëgg nañ pour ma nekk président mooy le président Ousmane Sonko une des personnes yoo xamante ne je me suis plus appesanti sur lui pour réaliser moom projet dans le cadre interne. par rapport à la documentation, par rapport aux travaux, par rapport au projet. Même qui a fini par être secrétaire général du parti, qui a eu à occuper beaucoup de stations, qui a été très déterminant dans le cheminement de PASTEF. Ligue pour Ousmane Sonko n'est candidat, n'est président de la République du Sénégal depuis une dizaine d'années, parce qu'il est membre fondateur du parti. Nous avons son mentor tourne non, non, c'est lui le meilleur candidat. Pourquoi Parce que ceci, parce que cela. on a cheminé ensemble gis naa ko lii gis naa ko lii observé naa ko lii ak lii doon na suñu diggante ba lii la mujjee te ñun lenn la ñun on est témoin c'est-à-dire que ñun Diomaye c'est pas un extraterrestre Diomaye on le connaît comme ni ñu la kii parce que on a travaillé avec euh, avec lui xam lu mu séq Ousmane Sonko xam lu mu séq parti bi xam wàccuwaay bu ko parti bi war a jox ndax lu ko parti bi jaral ak lu mu def attention du ñëpp mën a wax si ñëpp mën a wax si Diomaye de Diomaye dafa liggéey c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est boo xamante ne tey boo génnee Euh, bureau Pastef loo fi teg loxo Diomaye mi ngi ci je peux en attester parce que j'ai travaillé avec lui sur énormément de choses waaye énormément de choses yoo xamante ne président moo koy dénk yoo xamante ne xaaru sax kenn dénk ko il avance il prend boo ko nee nii fekk commencé na ébauche je le connais très très très parce que mënoon naa toog comme ni ma la ko waxee en début d'émission naa listé lu bëri ci parti lépp ñoo ko defandoo yenn yi j'ai fait j'ai soumis au président yenn yi j'ai soumis à Diomaye yenn yi il le nous il nous copte pour qu'on travaille avec lui et ça fait longtemps lépp loo fa gis ñoo ko liggéey Diomaye c'est quelqu'un d'extraordinaire wallahi azim je le dis pas pour quoi que ce soit mais c'est un excellent profil pour le Pastef donc loolu mënuñu am booloo seen diggante dem na ba tuddee ko donc kii sama frère la man lay liggéeyal pour ma nekk président il l'a fait pendant dix ans politique mën lu nekk egg nañ egg nañ xaaral egg nañ ba si fin bi man mënu moo ko nekk mais moom mënu na ko nekk et puis nous on a un sax mu nekk un autre candidat mu ñëw même kooku bu ñu trahiré mais assemblée nationale bu gouverneur dañu koy téye du yàgg incha allah six mois après dañuy dissoudre assemblée nationale cest à fii nii dara xew fi en réalité Pastef ñi ngeen dégg sax ñu génn même j'ai vu un poste de Ousseynou ak des et gis nga c'est les gens ils sont de très bonne foi Ousmane Sonko ñi ko xam ñëpp kenn yéenewu ko kaso parce que wallahi azim il fait partie des meilleurs fils du Sénégal ñun dañu ko xam dañu ko pratiquer et ku mel noonu nga faa nga xam ko mu nekk ni ku séddee ni ku diñ di liggéey xëy benn jour lii daal loo mën def mu génn da koy def. mais mais mais quand les les gens font glissement là c'est pas parce que ils se dressent contre une stratégie élaborée par le parti non c'est des gens qui parlent parfois. comme j'ai eu à faire un m'a euh. amené à Rebeuss d'ailleurs. <laughs> on va reparler de ce poste là.